di leen baal waxate di leen ko baal di ñaan suñu borom boolu ñu jéggal di jiital ci nuyoo yeeg ziyaare sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu gën fi yàgg gën a wér bali mu naa la liggéeyal maamam ji ja Seex Xadim mu eggale ko ca ñu ànd koog moom ni ngeen miinee Touba Vision nag ci ay tànkam di dox fépp ci àddina bi di seetu mbokk taalibe yi seen i toogaay ci seen liggéey seenu taalibe li ñuy liggéeyal Seex Xadim ci àddina bi ñi ngi fii nag ci France ci Paris ci bis bu màgg bi nga xamante ne sëñ Cheikh Khadim moo koy amal at mu jot le 13 juillet di ci sant maamam ju tedd ci maam Cheikh Ibrahima ñu profité nag ci biir loolu euh, dalal suñu gan yu tedd yi nga xamante ne seen yëngu yaakaar naa léegi mu siw ci àddina bi yëpp ñu yëkkati projet bu am solo boo xamante ne xam naa balaa ñuy sori rek dañuy jox Serigne Ibrahima jenn euh, mu présenté ñu euh, mbooloo mi naka la.